أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المكين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صدق لساني نوير جناني سفي أماني وزد برائي ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi gannaaw bi ñu santee suñu borom subhaanahu wa taala di julli ci bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi dellu di sant sunu sëriñ sunu yaakaar teeg ëllëg sëriñ Tuubaa xadimu rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal alxalifatul aam li tarixatil muridiya sëriñ Muntaxa yàlla guddal aw fanaam te wéral ay cëram ci barke maamam Serigne Touba. seen émission bii ñu baaxoo ànd yéen di maktabatu Cheikhul Khadim radiallahu anhu di émission boo xam ne dañ ci waxtaane lépp sëriñ bi ci lu yàlla ci lu ab taalibe mën a xam ci zahir ci xelam fu mu toll émission boobu nag nin ko baaxoo waxee maktab moom lépp a ngi ci biir lépp lu mën a jariñ ab taalibe rek wala ab jullit rek mi ngi ci biir maktab maktabatu Seexul Xadiim na tey ñu génnee lenn ci maktab bi mooy waxtaane loo xam ne dana fës lool ci biir maktab bi muy waxtaane euh, bés bu tedd bii ñu dëgmal muy bésu màggalu Daaru Xudoos di bis boo xam ne sëñ Moodu Moustapha mi taw sëriñ bi moo ko ko wooteel di ko màggalal fii ci Touba ren nag mel ni daa am lu ci yees muy téeméeri ati sëriñ bi ci fii ci Touba gannaaw bi mu bàyyi ko njaareem ci ama wamsas ci li ñuy wax hijriya na xam naa bu dee ki nga xam ne moom daa tënku ci atu miladiya day jàpp ne mille euh, deux mille vingt sept. Mm-hmm. mooy centenaire. ba tey ca kooku jàng tubaab waaye bu dee ci ñun ñi nga xam ne ay jullit lañ te suñuy at tënk tënku ci hijriya te mooy ati gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon Serigne Touba ren jii ci mille quatre cent quarante six ci lay am téeméer fii ci Touba kon muy centenaire bi nga xam ne kon ren moo làmboog màggal yi ñu nekk nag ci weeru tedd. di weeru muharram di weer woo xam ne weeru am wàccuwaay la ci lislaam ndax bu ñuy wax li ñu wax léegi mu hijriya ay weeram toll ci fukki weer ak ñaar weer yi moo ci jiitu muy muharram di euh, di safar euh, rabiul awal rabiul axir jamaada ula jamaada saaniya rajab saaban ramadan zawal sil qida sil xijja kon weer yi mooy weer wi jiitu ci atum jullit yi hmm. bokk ci li ñuy wax asxurul xurum mooy weer yi nga xam ne dañ leen a masoon a ormal xablal islaam nga xam ne daawuñ ci xare daawuñ ci def genn mooy yàlla daawuñ ci dog mbokk daawuñ ci def leen lu ñaaw muy sil qida sil xijja muharram ak raja rajabul farj ndax rajab dafa nekkul seen diggante moo tax mu beru ñu naan rajabul farj waaye nag li gën a fës ci ñun indana euh, fi tarixati muridiya mooy ñibbisi gi nga xam ne ci la Serigne Touba ñibbisi fii ci tubaa dëkkaale ak boroomam ba faw ndax daa mës a dëkkaale ak boroomam waaye nag ñibbisi ci dëkkam bu tedd bii nga xam ne mooy dëkk bi mu gënoon a bëgg ci kaw suuf kon bis boobu yi la ñu war a waxtaane tey euh, nga xam ne ci weeru yi ci fukki fan ak juróom-benn euh, juróom-ñeent waaye fukki fan ak juróom-benn ci la sëriñ bi mujj def li ñuy wax waxante ak taalibe yi ci weeru ci weeru muharram kon ca bis boobee daanaka euh, waxantiwaatul ak ñoom ba ca altine ja ba mu jullee fajar lañ ko noppee gis ba ni muy wujjee boromam ba si si mënu soi di ñëwee di ko indi fii ci tubaa kon bis boobu nag la war a waxtaane ñu fas yéene ànd ak nag euh, Serigne Mbacke Ndiaye di kenn ci Darou Khoudoss waaye itam di kenn ci mbokk yi nga xam ne ñoo salloo liggéeyub daayira bi wala liggéeyub màggal gi kon moom lañu dalal tey fii ci maktabatu Cheikhul Khadim ngir war a waxtaane nag jëmmi màggal gi ci boppam ca ca woote ba ak la waral woote ba ak itam tolluwaayu màggal gi ak dayoom ak itam wan wàccaay nag lañ lañ waajal dëgg-dëgg nag ci téeméer ati sëñ Touba fii ci tubaa kon foofu la ñu wàcce suñu kàddu jox Serigne Mbacke mu nuyoo ñu mën a tàbbi ci biir waxtaan yi kon Serigne Mbacke asalaamaaleykum wa rahmatullah aouzu billahi min asheytaani alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi sawi ridwaani wa tamkin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokk yi nga xam ne yéenay bàyyi xel seen rajo bii di Assalaamy FM 99 point 0 noo ngi leen di nuyu bu baax noo leen di siyaara noo ngi leen di ndokkeel noo ngi leen di balu xaq te di leen ko baal di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu boole nu jéggal bi jaahi saydil wujood barkeb seexul xadim mm. di jiital ci nuyoo boobu ak siyaare bi ak ñaan yi saahibul fadila cheikh mouhamadul muntaka mi nga xam ne moo fi tooge jataayub sëriñ tubaa di ko ñaanal mu yàgg fi lool mbàkki te wér bali mu naa la liggéeyal sëriñ tubaa lépp sunu borom kàttanal ko mu àggale ko fa ko soobe waaye noonu lañ koy ñaaneele nag sëriñ ahmadul muxtaar mi nga xam ne mooy xalifab cheikh mohamadul moustapha al karim di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér waaye noonu lañ koy ñaaneele sëriñ cheikh mbakke moom sëriñ mbakke madina mi nga xam ne mooy jëwriñi daaru xudóos gépp di ko ñaanal moom it suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko waaye noonu lañ koy ñaanale cheikh abdourahman mbakke mi nga xam ne mooy xalifab sëriñ cheikh mbakke gaynde fan ma suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko waaye di beral nuyoo ak ñaan Mm-hmm. sunu yaakaar yi tey ak bu ëllëgee mm-hmm. di cheikh mouhamadul moustapha moom sëriñ mbàkke mouhamed mm-hmm. di ko ñaanal bu baax a baax suñu borom bàyyi ko fi lool te yàggal ko te wéral ko ba lim sumba liggéeyal lislaam ci turu sëñ mouhamed mbàkke suñu borom kàttanal ko ba mu àggale ko fa mu ko soobee waaye di nuyu nag bu baax sëriñ fàllu silla Mm-hmm. ki nga xam ne mooy boroom rajo bi nu xam ko bu baax di ko bàyyi xel ci liggéey yi mu mm-hmm. liggéeyal sëñ Tuubaa mm-hmm. nu ngi koy nuyu di ko siyaar di ko ndokkeel di ko ñaanal liggéey bi mu am ci ndam lu rëy rëy ak mboolem ñu mu ko àndal waaye di nuyu sëñ Tamsir mi nga xam ne moom lañ seqal jataay bi ñu war a waxtaane nag lu mata a waxtaane muy màggaluk sëriñ Tuubaa gi ci ñenn ñi di ko wax màggaluk Daaru Xuddoos kon xam naa dañuy wàcc foofu suñu kàddu ba ci kanam incha allah macha allah jërëjëf sëriñ Mbàkke euh, nuyooyu matali na lool te am solo euh, di wéy di ziarat baax sëriñ Ahmadou Muxtaar di xalifab Daaru Xuddoos ak njaboot si Moussa gépp rek mu mel itam ñu ngi fàttali kon ñu ngi ànd ak yéen ci seen émission Maktabatu Cheikhul Khadim ci Assalaamy FM ci rajo bi 99 point 0 waaye tam mi ngi jàll ci YouTube bi ak Assalaamy TV xam naa di fàttali ñi nga xam ne ñu ngi teewlu jotaay bi ne bëgg nañ buñ àggee ci mujj jotaay bi ñu ubbi ligne bi ci 33 943 48 28. ngir ñi nga xam ne ñi ngi teewlu te bëgg a jottali seen nuyu ak seen i ak seeni i dolli ci waxtaanu dara incha allah ñu mën a ànd kon sëriñ Mbàkke dañ lay delloowaat kàddu gi ci nga fàttali historique gu historique gu màggal gi maanaam ku ne xam ne ne yoonu murit euh, màggal Daaru Xuddus bokk na ci màggal yi fi jiitu ba tax sa am ñi wax ñu daan wax naan màggal gu mag gi euh, màggal gi suñ mënu saa moo ko moo ko sos ñu bëggoon a xam ci yan jamono la tàmbali màgget màggal gannaaw sëñ Tuubaa waaw jërëjëf sëñ Tamsir bis bi ñu dëgmal di ansruuna muharram di ñaar fukki guddi ci weeru tamxarit di fukki bëccëg yi ak juróom-ñeent bis bi mooy ñibbisi sëriñ Touba ci dëkk bii di Touba ginnaaw bi mu lëggéelee sunu boroom jaare ko ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ba sunu boroom fay ko liggéey bi mu ko doon liggéeyal ba moom moo daa wax ne allahuma ijal xayra ayaami yowma alxaaka mm-hmm. yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma bis bi gën ci samay bis bis bi may dajeeg yow bis boobee mu doon dajeeg moom nag mooy bis bi nga xam ne ci la wàccoon ab liggéey mm-hmm. xam naa ñu loo xel taalibe yi ñu déglu xam ne màggalun wàcc liggéeyub sëriñ tubaa mm-hmm. dañuy màggal ñibbisi sëriñ tubaa Mm. ndax Serigne Touba wàccul liggéey bis bi koy bis bi ñu koy màggalal wàccu ko liggéey. Mm. altine la wàccub liggéey. Mm-hmm. ba ca talaata ja. Mm-hmm. ñu door ko indi Touba. Mm-hmm. kon léeg-léeg am ñu naan bisu naqar waaye bis bi mu wàccee liggéey. màggaluñ ko waaye bis bi mu ñibbisee Touba la ñuy màggal. maanaam bis bi mu ñëwee ci dëkkam bii. ñu denc ko. bis boobu la ñuy màggal. macha ca bis booboot. moo ci joxe woon ndigal. dafa woon sëñ Modou Moustapha. ba mu ñëw. mu bind aw kayit. jox ko. woo sëñ ma sàmba ne ko damaa bëgg nga seede ko bu ma fi jógee ba at sàngam na ngeen ma nanga ma dajaleel taalibe yi ci barab bii barab bii ci jumaa ji fàttaliku ma ba mu ko defee daa ti jox këyit wa sëñ ma sàmba daal ko jox sëñ ma sàmba sëñ Modou Sa mu jàng ko sëñ Modou Sa joxaat ko mu jox ko sëñ ma sàmba mu jàng ko mu joxaat ko sëñ Modou Sa sëñ Modou Sa denc ko bi nu demee nag ba sëñ Tuubaa jóge fi ama wam sa sin ban de ba ban dem ba mi xaama wam sasin mooy mille trois cent quarante six mhm. bi demee ba xaama sa sasin di mille trois cent cinquante huit la sëñ Modou Sarr door a woo ku ñuy wax Baye Makhtar Diop mhm. Kaolack la dëkkoon mhm. ne ko demal nga wool ma sa Baye Massamba Baye Makhtar jóob dem ñu ko sëñ ma Massamba daa génn mu ñëw ne sëñ Modou saa sëñ ma sàmba daa génn sëñ Modou Sarr ne ko toppal ma ko ba foo ko gisee rek nga wool ma ko nee na bu di ko topp ba dabe ko Louga mu yor ab voiture mu ne ko sëñ Modou Sam moo la soxla bi sëñ moo bi sëñ Massamba ñëwee fekk sëñ moodu Moustapha Fatou sëñ Modou sëñ Massamba tëdd fii jumaa ji ne sëñ Baxtaar Diop mi yónni woon tëdd ci buntu sëñ Modou Sa bi bi sëñ Modou Sa ubbee daan na ko ba kële tëdd ci jumaa ji ko kan la mu ne ko bàyyi Massamba de moo ñëw fekk nga fatu mu tàyyee àgg këram tëdd fa mu ne ko demal wool ma ko bi mu ko woo ba ñëw sëñ Modou Sa génne maxtu mi mu takk këyit bi sëñ Touba bindoon. jox ko sëñ ma waaw sëñ Massamba jàng ko ne ko man di bis bi daa mel ne dama koo xawoon a faay. Mhm. daan ne ko kon tey la. Mhm. sëñ Mourou Sane ko ma sàmba tey la ishrina muharram. Mhm. sëñ Makhtar Diop ne na ci laa njëkk a dégg baatub ishrina muharram. daan ne ko waaye àndal ak taalu bi nga jiituma ca jumaa ja. nee na ba mu demee ci jumaa ja. sëñ Mourou Sane topp ko. ñu àgg indi ab sees ñoom ñaar ñu tiim ko kenn nangu cee toog. Mm-hmm. ñu tiim ko sëñ Modou Sa digle ñu jàng ñaar fukki kaamil ak juróom-ñett ci barabu sëñ Tuubaa bi daal di jàng xasida yooyu ñu baaxoo jàng ci màggal gi di ko digle mm-hmm. mooy jës boog mu waayi boog mu xaddimaat ak miimiya mm-hmm. ñu jàng ko fa sëñ Modou Sa def fa xutbaam bu dal ba daal ne maa ngi leen di xamal ne lii ma leen woo du sama coobare laa leen woo ki nga xam ne mooy sama sëriñ di seenub sëriñ moonu digaloon ne bis bii dat bii bu ñëwee nan ko wooteel taalibe yi ñu fàttaliku ko fii ban pare ñu daati demaat nag ca kër ga mhm. ba ca déwén sa di mille trois cent cinquante neuf mhm. ci la door a woote ne bis bii kat juboo naa ceeg sunu borom ne mhm. képp ku ko fanaan fii ci dëkk bii ji tuubaa seet nga ciy bàkkaar ba mel na ba ngay door a gën a jamono loolu sëñ Modou saa moo ko wax moo tax am di jóob ba eh, doomi sëñ maxtar jóob cump la nee na sëñ Makhtar Diop cump moo ko nett ne ko benn bés sëñ Modou Sa damaa woo ma fekk ko mu toogal sëñ Massamba nee na may wa sëñ Modou Sané ma wargaal ma nee na may warga ba mu yàgg sëñ ma sàmba moo ne sëñ Modou Moussa Moustapha hmm. sa bisu way jur wii bu ma la ci jàppalee maag sa bàyyi Cerno loonu warlu mu ne ko ah, xaw ma lu leen sëñ tubaa war lool mm-hmm. waaye man ci sama jëmmi bopp de war lool naa képp ku fanaan ci guddi gi mm-hmm. sar nga ci bàkkaar ba mel a na sëkk mm-hmm. naa ci ak suñu borom mooy képp ku fanaan ko ku ko fanaan tuubaa sar nga ciy bàkkaar ba la ba door a gën a jamono loolu ba mu ko waxee nag ba noppi nag la tàmbali woote ko moom nag woote na ko bu dee ci atum miilaadiye nag la ko woote ci atum hijriya 1358 ah, kon bu dee ci atum milaadiya mhm. sëñ tubaa jóge na fi ba am juróom-ñeenti at mhm. bu dee ci ati gàddaay gi mhm. sëñ tubaa jóge na fi ba am fukki at ak ñaar moo tax ñu xam ne màggal gi ren jii li tax ñu ne téeméer téeméeri at la am na ñu ci xaw a juum tuuti ci ñi nga xam ne danoo topp njàngum tubaab bu dee milaadiya 1927 la fi sëñ tubaa ba jóge woon kon 2027 la war a mat téeméer waaye nag sëñ tubaa ay mbiram da ko doon datte ci hijriya maam mi ngi ko xaama wam sasin ren jii ñoo ngi ci xaama wam tasin mhm. muy 1346 ba 1446 mooy téeméeri at yi nga xam ne sëñ Tuubaa am na ko ci dëkk bi mhm. ñu ñaanal Cheikh Mahamadul Muntaxa bu baax nag ndax téeméeri at yooyu bi mu xamee ne am na mhm. la yëkkati téeméeri million at mu ne mu jagleel ko million jox ko Cheikh Ahmadul Muxtaar ne ko nan ma ko defal ci màggal gi ndax lu jag ci yoon wi ci téeméeri at yi la jagi sëñ Tuubaa masha Allah <laughs> jërëjëf sëñ Mbàkke Njaay eh, am na solo lool ci leeral gi nga leeral jëmmi màggal gi ci ni ñu ko doore ndax danga wax lu am solo mooy bari na murid yoo xam ne jàpp nañ ne dañuy wàcc dañuy màggal wàccu liggéeyu sëriñ bi te ci yoonu murid yaakaar naa ku toll ni Simon Moustapha ak ni mu dañee ci ak ñàkk xam xam na bu baax lu muy def te itam laa tafalu shay'an bi xayri izni fa iznu sartan fi xabari sha'ani kon ndigalal sëñ Tuubaa la amoon ci màggalal ko màggalal ko bis bi ndax Euh, li nga wax ci biir wax ji daa am solo mhm. maanaam wootewut moom noonu rek mhm. dafa woote ba pare am lu mu ci diggee mhm. mooy ci fi nga daal na say mooy képp ku fanaan Touba ci bisu màggal gi ci bàkkaar nga xam ne daana àggoon na sax di wax di wax ne ku am menn mbubb sax na ko jaay ñëwee ko ci màggal gi kon euh, di wéy di ñaala baax si mun taxaan noonu mu def ci bis bi te muy lu am solo ndax moo fi nekkal Sëñ Tuubaa kon lépp moom la war. Mm-hmm. kon gannaaw bi ñu leeralee nag. Mm-hmm. jëmmi màggal gi li ko waral. Mm-hmm. mooy dikk ñi ñëw suñ fii ci Touba. ndax suñ Touba moom bi mu sosee Touba. daa wax ne ñaari dëkk yi dama leen a sos. ngir jaamu yàlla. muy Touba ak Daaru Salaam. am loolu képp moo tax mu sos ko. nga xam ne yàlla ko nattoo woon ci mu génn tubaa te dootu fi teg tànkam. ci Zahir. te itam keroog ba mu. wàccee liggéey la bokk na ci ndigal yi mhm. nanga ma yóbbu Touba mhm. kon si mun Moustapha ndigalal mhm. indi sëñ Touba Touba ndigalal sëñ Touba la kon indi gi mu ko indi tubaa ngir def ndigalal sëñ Touba kon ku ne xam ne lu jar a la lool lu jar a màggal ndax ndigal la te def na ko mhm. Mhm. kon lu lu jar a màggal la mhm. kon war nañoo yeewuwaat ci ne kon màggalu Daaru Xudoos ñëw gi Sëñ Tuubaa ñëw ñëw Tuubaa te muy lu mu bëggoon loolu la ñuy màggal kon yal nañu yàlla may dégg a topp ban déggee ko noonu noonu ñu ko xamee léegi euh, sëñ sëñ Mbàkke ñu bëgg a dugg nag ci dëgg-dëgg màggal gi ci si si mënu saa moom bi mu ko wootee anam anam bi mu ko doon taxawoo ci gan anam la. Mhm. moom ci jëmmam ci boppam gannaaw ak njabootam. waaw sëñ Modou Moustapha bi mu wootee màggal gi ngir ñu leeralaale li tax ñu koy tuddee màggal gu njëkk gi. Mhm. mooy màggal gi ay murit njëkk a daje ci Touba di màggal ci yoonu mhm. màggal gu njëkk a woote ci Touba ab woote daje di màggal. loolu moo waral màggal mu njëkk yi. sëñ Modou Moustapha bi mu wootee màggal gi lam ci digle woon dane man day màggal gii jox ma ci juróomi baaraam moo ma ci gënal jox ma ci juróomi junni hmm. mooy ñëw nuyu ma ba ma yëg ne màggal si nga hmm. moo ma gën nga yëkkati addiya di ma ko jox hmm. daana waxin ne képp koo xam ne dangaa am ñaari mbubb ca amoo paas na nga jël menn ma paase ko ku am loo ma war a andil addiya am sa mbokk mu bëgg ñëw ci amul paas jox ko ko soxlawu ma xaalis bi roo laa soxla mu moom nag bi mu ko wootee ni mu ko doon màggale mooy la ci jiitu mooy njàngum alxuraan nga xam ne bu weer yu masaa teru moom bi mu ko wootee moom bu weeru tam xarit masaa teru lay digle njàngum alxuraan ba ca bis ba njàngum alxuraan bu noppee la lam ciy digle mooy ñu jàng ay xasida yiñ ci taamu woon nag mooy ginnaaw boo boo ko jàng leen loo ci toftal baax na waaye ma mawaa jës boog mawaahi boog mu xaddimaat ak miimiya yooyu la taamu woon ne moom lu waaye xat-xat ma fexe ba jàng ko ci bis bi bu paree mu def ci ay salaatu ala nabi lu man bu paree mu def ci istixfaar lu man waaye nag la ca tege nag mooy gan ñi nga xam ne ñooy ñëw nañ leen di berndeel mhm. daan ne bëccëg gi lu ci waaye def sa coobaree la lu baax la mhm. nañ ci jàngal xuraan waaye dëgg dëgg màggal gi guddi gi la mhm. ndax guddi googu waxtu woowu ñuy màggal waxtu woowu lan doon denc jébbal Serigne Touba boromam. fii ci jumaa ji kon loolu dangaa wax léegi lu am solo laa sa sayan bi xëyri isni fal isnu sartun xaboo xaboli sa ani jëf ju ne sart la ci ñu nangu ko mu mu ànd ak ndigal mhm. kon loolu ndigal li sëñ Modou saamoon mhm. bi mu koy màggalit màggal na ko 1936 ba 1945 mhm. kon màggal na ko juróom-ñeenti at yooyu màggal na ko 1936 euh, 1945 màggal na ko juróom-ñaari at. wala juróom-ñetti at. door fee jógee. kon loola. la ko waraloon màggal na ko juróom-ñeenti at. ndax 36 ba 45 juróom-ñeenti at la màggal na ko juróom-ñeenti at door fee jógee bi mu fi jógee nag la fay door a bàyyi nag sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma mu màggal ko mm-hmm. ci déwén sa nag ba ko sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma màggale ci déwén sa mm-hmm. la sëñ Fallou doore woota màggaluk 18 safar fii ci Touba 1947. Hmm. 47 fekk na booba màggalu 18 safar. Hmm. sëñ Touba danoon fu waay nekk naka fa defee. Hmm. sëñ Modou Sa danoon fu waay nekk naka fa defee. waaye sëñ Fallou moo ne ginnaaw sëñ Touba gi ci dëkk bi nag. nañ ko andil màggal gi ci dëkk bi. waaye màggal gi sëñ Modou Sa moom ba mu koy wootee. da koo tegoon ci ni sëñ Touba wax ca jës bu ca ca ca gàmmu. taasimuhu bi sunnati. yaquuduna lil jannati. bi isdiyaadul minnati li muxlisin muasim. na ngeen ko màggal ci sunna. moo leen di wommat ba yóbbu leen àjjana. Ah. waaye nag kay ka cay dem àjjana mooy ki sell sellal ni mu koy màggale mhm. moo tax sëñ tubaa nag sëñ Modou Sa nag bi mu ñëwee bayitu sëñ tubaa woowee la indi teg ko ci màggal gi mhm. daan ne nii laa ko soxlaa dëgg la nii li sëñ tubaa wax ci gàmmu rek mhm. laa soxlaa màggal gi dara wutewu ci kon sëñ Modou Sa moom tànki sëñ tubaa la toppoon ca nag ba mu koy def at yi néew na la ndax bi muy wuutu sëñ bi muy jëli sëñ Touba njaareem di ko andi Touba ñeen fukki at la am mm-hmm. am na sax ñu ne manqué na ay weer mm-hmm. ndax bi mu demee bi mu nekkee ñaaxeen mm-hmm. bi bi muy yëg ni ku baax ki jóge na fi naa ñeen fukki atam sax manqué na ñaari weer wala ñetti weer loola ca la xamee ne kon jamono ji ñu toll sëñ Touba nee na ko woon boo moo tax ko fee ñu xamal ne ko ku baax ki jóge na tax bi mu demee sëñ Fatta sëñ Cheikh Fatta ko la fekk ci bunt bi uh-huh. laaj ko fu mu mujj dégg yëngub ku baax ki mu ne ko duggoon na ci kees gi de duggee ci kees bi fekk na sëñ Tuubaa ba mu duggee ci kees ga daa langal caabi ba mhm. bi mu langalee caabi bi mhm. sëñ Modou Saha bi mu ñëwee daa ubbi daa ubbi kees gi yam mhm. ci teg ci dënd bi sëñ Tuubaa sëñ Modou Saha nee na ma jël sama loxo teg ko ci dënd bi yëg ne ku baax ki nekkatu fi ma jël dénkaane bi daan daan ne daal di tudd yàlla daan na inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna ana sëriñ Basiru ñu ne ko daana génn waaye tey mi ngi fi mhm. mu ne nan ko mu ñëw mu ne ko ah ku baax ki de yàlla mi dara tëwut mhm. ñëw na dogal bi ci kawam ca waxoon na ne bu fi jógee mhm. buñ fexee ba yóbbu ko Touba luñ sumbati nañ ca góorgóorlu moo koy àggale waaye buñ fexee ba yóbbu gi Touba échec luñ sumbati nañ ca wéyee sago ndax yoonam du ci nekk dëgg la léegi nag jóge na fi ba Bachir ne ko nan ko daati yóbbal ko Touba bi yéeg mu ne ko déedéet loolu du ma xam nga ñu war da naan sëñ Modou Moussa da koo jaarale ci buntu ginnaaw ba sëñ Modou Moussa dépassé ne fu muy jëlee sëñ Touba di mhm. dañ ci Touba ba ne ko mhm. ku baax ki day jóge na fi ca daa waxoon ne bu fi jógee naa ko yóbbu ca dëkkam ba ca penku mhm. bi ne ko may ma bu suba ma waxtaan ak sama kilifa dëgg la sëñ Modou Moussa ne ko du ko man ndax yëngu bi muy jural bi muy jur du ma ko jaral wallaahi ban ca xëqantee mu door ne ko kon yóbbu ko bu subaa mu door waxtaan ak moo tax sëñ Modou Moussa demut ca denc ba da koo jox sëñ Basiir mu yóbbu ko mu mu yabal sëñ Ablaye Diop lew na mm. mu dem wooyi borom daaru mu ñëw ñu taxawu ko denc ko kon sëñ Modou Sa daal nii la ko doon màggale tansimuhu bi sunnati mm-hmm. yàquduna lil jannati bi isdiyaadil minnati li mm-hmm. muxlisin moasi macha allah sëñ Mbàkke am na solo lool tawarkàlla te itam duggaan nga bu baax ci uh, bàyyi koo gi sëñ bi bàyyi koo njaareem mm-hmm. ci bis bu yéeme boobu ci uh, tëddaay bu tedd boobu nga xam na jël la simoon fekk indi ko fii ci Touba ak ña ko teewe ñëpp nga xam ne comme li nga wax ne waxtu guddi la waaye wax nañ ne la tax sax denc ba dem ba fajar mooy bañ àggee ba waxtu julli fajar jot suñ bàkki bu su daa wax ne nañ ko nañ bàyyi ba ba julli fajar pare mhm. doo àggale mooy lu doy waar loo xam ne war nañ ci indi mhm. ay jàngat yu am am am am solo yu bare bare bari mhm, euh, mu mel ne Serigne Moussa bi muy woote màggal gi ñu ëpp ci njabootu sëñ Tuubaa gi ñu ngi fi. Mhm. moo xam sëñ Fàllu la. Mhm. moo xam euh, sëñ Basiiru. Mhm. sëñ Abdu boobu dër bi. doomi sëñ Tuubaa daal ñu fi bàyyi ñu ëpp ñu ngi fi. maanaam ndax mën nga ñëw ndax am nga dara ci histoire. ci doomi sëñ Tuubaa rakkam yooyu nga xam ne. ñu ëpp ci ñoom sax. ñi gën a nekkoon tu tànk. jàppoon nañ si mënu soi mooy seen waajur. ngir ñàkk xam sëñ Tuubaa gi gi nga ñàkk xam. ndax bi sëñ Tuubaa dem ay ay tu lañ ay soxna may ak. ay si motalaak ñooñ waaye ndax man xam nga histoire ci loo xam ne. Mm. doomi suñ Tuubaa yooyu. Mm. naka lañ naka lañ ànde woon ak si Sëriñ Muusaa mm-hmm. ci bisu màggal gu tedd gi. waaw jërëjëf sëñ Tamsir. njabootuk sëñ Tuubaa gi. dama leen a jëlele mais sëñ Tuubaa dafay bàyyi woon ay rakkam. Mm-hmm. sëñ Mourou Moussa bi mu wootee màggal gi. Mm-hmm. sëñ Massamba ngi fi. maam Cheikh Anta maam Thierno ngi fi maam Cheikh Anta ngi fi. sëñ Balla Coroog. sëñ Balla Coroog rakki sëñ Tuubaa yooyu nga xam ne way jur lañ ji sëñ Mourou saa boole ko mu bàyyi fi ay cheikh yu fees dell sëñ Massamba mi mu wowoon sax waaw sëñ Massamba mi mu wowoon nga xam ne bàyyi la ci moom ndax sëñ Massamba doonte sëñ Touba rek la jàppi way jur waaye nag bàyyi la ci sëñ Modou Moustapha ndax Maam Mor Anta Sali ko jur doonte fekk ko fi waaye moom bi mu ñëwee moom boppam mhm. moo seede màggal gi moo tax li mu doonoon gën a ndaw ci njabootu sëñ Touba gi mhm. njabootu Maam Mor Anta mhm. moo tax sëñ woo ko ne ko kaay seede ko yaa koy seede bi mu ko seedeet bi mu fi bàyyeen ñi mu fi bàyyoon ñëpp ànd ceeg moom njabootu sëñ Touba gi mu bokkal sëñ Touba ci boppam nag ndax euh, damay wax ne dafa yënuwul maanaa mhm. sëñ tubaa di joxe ndigal ci yoonu murit mhm. di ko jox génn kër mhm. yënuwul maanaa sëñ tubaa ni mu toll ak fi mu toll ci suñu borom di joxe ndigal di ko jox ndigal ci yoon wi di ko jox génn kër dafa tolloo bi muy joxe ndigal li xam na ni bu fi jógee kii moo ko fi wuutu booba fi ne bu doon sëñ Fallou fi nekk sëñ Fallou lay jox digal dëgg waaye sëñ Modou Sa booba moo fi nekk mag ci ay doom mu xam ne mi ngi waaj ndaxte wax nañ euh, euh, at mi mu joxee ndigal li mhm. ca déwén sa la wàccub liggéey at mi mu joxee ndigal sa bi bindee kayit bi mhm. ca déwén sa 1345 la bind kayit bi 1346 mu wàccub liggéey mhm, kon menn at la fi toogaat kon xam na ni kii moo mag ci njabootam mu jox ko ndigal li xamoon na lépp xamoon na daal bi mu fiy jógee léegi njabootam googu nag dañoo àndoon ak moom ci màggal gi sëñ Fallu sëñ Basiiru ba ci sëñ Baara waaye nag njaboot gi ci des nag moom ñoom danoo jàppe woon sëñ Moodu Musaa way jur ba lépp lu sëñ Modou Sa wax duñ ca teg baat dëgg la moom ñoom sëñ Modou Sa da leen di digal ñuy def mhm. même ñee da leen di digal ñu defee ñii ay mag lan fekk si nañ ko mhm. Mhm. waaye ñee ku mel ne soxna may soxna may moom nee na yéex naa xam ne moom sëñ Modou Sa bokk baay daa defe na woon seen taalibe baay bu baax la rek di ko liggéeyal <laughs> wallaahi <laughs> sëñ Abdou li ko tàmbali dama ne wax li ko tàmbali sëñ Abdou Lahad ba ci soxna may lu nekk ci ñoom rek sëñ Modou Sa ko ci def dëgg la ndax sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma mi nga xam ne mooy taawu sëñ Modou Sa sax moom ak sëñ Abdou Lahad ndax moom douze la gën a jamono Cheikh a gën a jamono quatorze mm. kon moom mm. moo magoon Cheikh Blaat mm. ko tàmbalee Cheikh Blaat jaar sëñ Abdou Khadir jaar ci sëñ Chouaïb ba ci sëñ Saliou ba ci ñooñu ñëpp sëñ Modou sëñ Cheikh leen mag ñoom ñëpp lu nekk ci ñoom sëñ Modou Sa ko ci def mhm. te ñooñu sax danoo fekkantiwut ak sëñ da xam ne mhm. mhm. a wàccub liggéey waaw bi sëñ Modou di woote màggal gi diisoo na ci ak ñoom dëgg la daana wax ne du juum Mhm. wala bu ma juumee mbooloo juum mhm. ndax lu may def damay diisoo mhm. bi muy woote màggal geet woo na njabootu sëñ Tuubaa gi nekkoon ay mag ci jamono yooyu ndax sëñ Fallu woo na sëñ Fallu woo sëñ Basiiru woo sëñ Baara wax leen ni wan leen kayit wi mhm. ba ba dat ba ñëwee nag mu door woo sañ ma Masamba mhm. waaye ñoom kayit wi moom ba sëñ Masamba demee mhm. la leen woo wan leen kayit wii sëñ Tuubaa bind kon képp koo xam ne njabootul sëñ Tuubaa jamono yooyu nga xam dara nga doon mag gis nga kayit wi sëñ tubaab bind di ci joxe ndigalul màggal màggal gi xanaa kay ci taalibe yi la waaye kilifa yi fi loon sëñ Tuubaa la ko tàmbali ci sëñ Fallu ba ci sox ba ci sëñ Saliou hmm. amul ku ci ñàkk ku ci ñàkkoon a respecté màggal gi hmm. ñoom ñëpp màggal gi dañ ko jàppe woon ne seen màggalu koy jur la moo tax saa bu jotee dangay xool ne kilifa yooyu yëpp dañuy dem kër sëñ Ahmadou Moukhtar siyaare ko ndax màggal gi ginnaaw sëñ Modou Sa lañ joxoon ndigal li mhm. dafa continuer di des ci waa kër sëñ Modou Sa sëñ Fall mhm. loot wax na ne moo ko rafaatale sëriñ Cheikh ba tax muy topp njabootu sëñ Modou Sa gi loolu daal lañ amoon ci histoire boo xam ne mhm. njabootu sëñ ñëpp àndoon ak sëñ Modou Sa ci màggal gi moom njaboot gi nga xam ne ñoo bokk ak sëñ Touba ñoo bokk ak sëñ Modou Sa sëñ Touba ñoom àndoon ci màggal gi macha allah tabaraka am na solo lool xam naa balaa ñoo gën a dugg sax ci gannaaw moom sëñ Modou Sa ak fi njabootam tàmbalee ci màggal gi bëggoon nañu nga sax gën a dugg ci njàmbaaru Simon Moussa ndax dafa am yu réussir yu bare bare bari ci jamono bu jafe muy réussir na indi sëñ Touba fii ci Touba réussir na taxawal yoon ba yoon wi dëgër ba suñ joon yàlla tey na indi jële raay bi njaareem indi ko Touba réussir na taxawal jumaa ji réussir na itam taxawal njabootu sëñ Touba gi te bi mu wut bi mu wutu Sëñ Tuubaa mm-hmm. booba ñeent fukki atam mm-hmm. mën nañ mat na wala yées na mm-hmm. waaye daal booba ci li ci liñ mën a xam daal mën nañ wax ñeent fukki at rek kon boobu ay at ay atam bëriwut ndax ñun ñi li ñuy néew néewi at lañ am daanaka am na ñeent fukki at waaw waaw kon léegi njàmbaar njàmbaar googu nga xam ne moom taxawee na ko maanaam bëggoon nañ ku ñu ci ku ñu ci fàttali lu lu lu am solo loo xam ne. Mhm. ma des na ko roye. Mhm. gën ko ko fàttali ko. Mhm. ñu doog a kondiwaat fi ñu tolloon ci màggal gi. waaw liñ ci njëkk wax rek sëñ Modou Moustapha dadaa wax ne. am naa yaqin ci na sëñ Touba ma jur. am naa yaqin ci na làq naa ngërëmam. waaye man Modou Moustapha jub moo ma doy. moo doon jub moo ma doy. sëñ Modou Moustapha nag laata muy indi sëñ Touba Touba. dafa am benn bis mu nekk ak sañ Touba Njaareem. Mm-hmm. tubaab bi wow ko moom sëñ Modou saa mm-hmm. mu ñëw ñu ne ko danoo bëgg a waxtaan ak yow. Mm-hmm. sëñ Modou Sa neen bisimilah. ñu ne ko sa way jur wii dan laa bëgg a leeralal la tax ñu bàyyi ko fii Njaareem téye ko fi. mu ne leen bisimilah ñu ne ko ñoo ko jële woon ca réew ma. yóbbu ko juróom-ñetti at yu manqué tuuti. ay la yiween benn ponk dong leen bëggoon ci moom mooy faat ko. yàlla nag dogal na ne mënuñu ci moom dara dellu si waat nan ko waaye danoo xam ne bis dana ñëw moom suñ borom mi jël ñëpp dana ko jël bu boobaa nag danoo dañuy bañ coow danoo bëggoon nga jox nu jëmmam ji ñu yóbbu ko reson bu tudd Lyon ca France denc ko fa sëñ du Sané baax na bi mu ñëwee daf fekk sëñ tubaa sóolu sëñ tubaa ne ko Modou Moustapha ana lu la tubaab yi doon doya mu ne ko Mbàkke tubaab yi danoo wax ne bu yàlla ñëwee akub dogalam naa jël sa jëmm ji jébbal leen ko yóbbu la France. sëñ Modou saa daa sëñ Touba daa soonoon waaye daa jóg toog. ne ko Modou Moustapha. Mm-hmm. mu ne ko Mbacke ba muy ñetti yoon mu ne ko tubaab yii nga gis. Mm-hmm. sëf nañ ma ba ma diis. Mhm. ñu takk ma ba ma dëgër mhm. war dem rekk ci des <laughs> war gi mooy ñu yóbbu ma France mhm. ngeen bañ maa yóbbu Touba daane bu ngeen fexee ba ñu yóbbu ma France bay boo ngeen yetti ay ay ay simi te dem ruuji xam ne sama yoon nekkatu ci yéen waaye nag bu ngeen fexee nag ba seen seen seen pexe moom échec ñoo ngeen yóbbu ma tubaa lu ngeen nekk ci rek na ngeen ma ci yaakaar xam ne maa koy maa koy àggale sëñ Mourou Sané ko fas nañ ko yéene moo tax li mu njëkk réussir mooy jële sëriñ Touba njaarim ko Touba ndénkaan yi mu na nga ma bu ma fi jógee na nga ma yóbbu Touba. Mhm. na nga ma taxawalal jumaa ji. Mhm. na nga ma yaral njaboot gi. Mhm. bi njëkk gën a jàmp mooy sëñ Touba jóge na fi. léegi nu muy def ba indi ko Touba mu defi pexe ba jëlee Serigne Touba njaareem indi ko Touba. jébbal ko boromam door jublu ci jumaa ji. jumaa ji nag sëñ Touba amoon na autorisation cinq waaye bi fi sëñ Touba jógee danoo annulé autorisation bi. daa di wax sëñ Modou Sané ko da wut beneen autorisation. Mhm. ne ko ba ca njëkk mooy jumaa ji. Mhm. bayaal bi muy dem. Mhm. faw nga baaje ko. maanaam da koy jënd. da koy jënd waaw. mu jënd ko ca jamono yooyu juróom fukki million. ca jamono yooyu. <laughs> bi mu ko jëndee ba pare ñu ne ko waaye nag matériel yi dem ci jumaa ji xajut ci oto. mu ne leen luy pexe ñu ne ko da ngay jëlee raay bi njaareem andi ko tubaa ngir saxaar si saxaar gi man ci aw. mu leen wax baax na mhm. ñu ne ko ciy condition mhm. condition bu njëkk ba mooy mhm. bu ngeen di liggéey raay bi ña cay liggéey da leen di fay ba ca des mooy duñ fi nekk di lekk cereeg laax liggéey suuf daal di waxtu bu ne dañuy lekk ndawal <laughs> sëñ Modou Sa nangu na ñu ne ko beneen ba mooy ñu ne ko raay bi bu jaaree ci toolu jàmbur bu ko boroom munta muñ yaa koy dédommagé ñetteel ba mooy ña cay liggéey buñ am leen teeg yoon yaay dem Mm-hmm. sëñ Mourou Sarr toog mu yàgg mu ne tubaab bi benn question rek laay laaj. Mm-hmm. ndax jëlee raay bi njaarim andi ko Touba ndax jar na solo soldaar. <laughs> ñu ne ko àggagun ci mu ne bu ko jaree rek ma def ko. ndax liggéey bi suñ tubaab bi jaral na ma. Mm-hmm. ñu ne ko nag condition yëpp boo ko mat lépp pare. dañ lay jox délai. boo xam ne bu ci raay bi agsi wul ñu annulé waat autorisation bi. ñu ne ko délai ba lan mu ne leen délai bi juróom-ñaari at. diirub juróom-ñaari at daal bu fi raay bi mënta agsi moom da ngay di wutiwaat beneen dañuy annulé boobu nga wutiwaat beneen sëñ Modou Sa ànd ak taalib yi jëlee raay bi njaareem. Mhm. indi ko Touba ci ñetti at yu manqué. Mhm. ca koo xam ne juróom-ñaari at lan la waxoon. Mhm. moo tax bi nga xamee ne saxaar gi corné na sëñ Modou Sa dafa loolu yi ñuy tuddee bàkku. dafa mel ne lu bàkku yëkkati ay loxoom daan ne sëñ Touba am nag bëggam. bi raay bi ñëwee rek. bi nga xamee ne saxaar gi. korne na. moo tax am na geneen màggal gu waa Daaru Xuddoos yi màggal fii ci Daaru Xuddoos. ñu koy tuddee la 4 mars. 4 mars la 4 mars. 1932. Mhm. la sëñ Mourou Sa njëkk a teg aw xeet ci jumaay Tuubaa. Mhm. sëñ Mourou Sa réussir loolu. Mhm. mu des njaboot gi. njaboot gi kenn ku ci ne. ki ci magoon bi fi sëñ Tuubaa di jógee ci ñoom ci ndaw ñooñu mooy sëñ Blaat. ak sëñ Abdou Khadir. ñoom booba. 14 ba 27 fukki at ak ñett boobu ñu ngi toll ci fukki at ak ñett ñi ci des ñëpp sëñ soxna may mu ñaari at la am booba ndax 1925 la soxna may gane jamono sëñ Tuubaa jóge fi 27 kon moom booba ñaari at la uh-huh. waaye njaboot gi sëñ Modou Sa mm-hmm. da a jàppe mm-hmm. ay doomam mm-hmm. walla mu gënal ñu gënal ko ay doomam wala wala salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah ñuy ziare mbokk mi loolu ñu lay ziare bu baax bàyyi ne am tawfeex alhamdulilah ñoo ngi sant bu baax bu baax. Ah, nga moom. waaw waaw. Ah, Seydina Ousmane Sourang. suñu mbàkke. maa ngi lay ziare bu baax a baax a baax. allo. allo waaw na yi. allo waaw bisimilah. waaw ah, Seydina naa suñu mbàkke maa ngi. bisimilah bisimilah maa ngi lay dégg de. bu baax a baax. Mm-hmm.

Mm-hmm. macha allah waxtaan la xam naa lépp am na solo moom dañuy rafetlu rek. ñu mën koy waxtaanee. yi tamit ñu ngi mm-hmm. Mm-hmm. rafetlu a baax. xam-xam bi. mooy itam macha allah la sees na dell. ñu ngi nuyu ak siyaar seen tëgg seen suñu Habib Thiam. ak mboolem ñi seetaan ak di bàyyi xel ci quatre-vingt-dix point zéro. waxtaan am na solo am na solo lool lool. xam naa dafi bàyyi benn la rek mu ne ci téeméeri at yi mhm. ñun ñi nga xam ne ay sonni ay ndaw mhm. euh, di séntuwaat di dund lu gàtt gàtt kenn ko suñu anga rafet njort donte ñeent fukki am na dañ ci dundaat mhm. wala fanweeri at biir boobu la lan la a reyaar ci si góor Moustapha ci ab taxawaayam ci taalibe yi ci taxawaayam ci diggante nag ku tedd ki waaye ab taxawaayam ci diggante itam Cheikh Mouhamadou Fadal maanaam daal léegi bëgg laa ci gàttal mooy lan lañ mën a royaat ci numéro bi safaa ci taxawaay bi amoon ci lislaam loolu laa xam naa dañ koy sàkkuwaat te defee ñu dañu ci bàjjaat bu baax a baax jërëjëf jërëjëf jërëjëf naa bàyyi ngeen àgg seen tafsir ok waaw jërëjëf sëñ su solo wax dëgg yàlla moom yaakaar naa moo nu boole sax ndax yàlla dogal na dañoo xame woon fële ca Bakel mu nekkoon fa ca daayira ba am solo lool ca liggéey ba mu fa jógee mu manqué nu bu baax a baax a baax waaye ginnaaw kenn ku ci ne da ngay sàkku rek loo terale sa njaboot dëgg la ginnaaw ba mu jóge fa féetewaat fii rek da koy siyaare di ko sant bu baax a baax a baax moom moom borom la mm-hmm. xam naa ñuy fàttali mbokk yi ba tey ci émission bi mm-hmm. 33 943 48 28. ku mm-hmm. bëgg ànd ak ñun ci waxtaan mm-hmm. xam naa njëkkante ak waxtu wi rek. Mm-hmm. gën a duggaan nag ci màggal gi ndax. fi doon wax da am solo. si mënu saa li mu rinsir. loolu na Sëñ Tuubaa xamoon na ko. ndax dañuy wax ne suñ Tuubaa bi mu jógee ci géej gi. tubaab yi seeni pexe mësta jug ci Sëñ Tuubaa. mas nañoo ñëw ci moom. ci wàllu communication ne ko dañoo bëggoon nga wax ñu. sa doom yi ku la ci gën loolu jubluwaayu yàq la <laughs> bu ne woon diwa ma gënal rek keneen ku suñ tubaa waxul rek ñu jii ma jalgati ci waaye suñ suñ tubaa day leen leeral leeral leen loolu leeral leen loolu ñu ne dañu wax ne sa doom yi kan nga ci gën a bëgg koo xam ne buñ ko laalee rek euh, daje yow ne mooy leen bismillah bind leen Mouhamadou Moustapha <laughs> waaw ñu bind Mouhamadou Moustapha mu ne moo mu jur rek képp ku mu jur yaa ngi ci biir Mamadou Moustapha. <laughs> ku mu ak ku ma jur ah. ak koo mën a doon yaa ngi ci biir Mamadou Moustapha. allah akbar wax ji jeex. Mm-hmm. kon loolu. Mm-hmm. wane na ne kon sëñ Tuubaa xamoon na de. Mm-hmm. xamoon na ne. Eh, ab taxawaayam dana mat lool ci ak njabootam. Eh, sëñ Mbàkke wax ji am solo lool. si Mamadou Moustapha jógee fi 45. kon màggal gi tàbbi ci loxo. sëñ Cheikh. Ahmadou Mbàkke. mi di tawam. magoon ci ak njabootam. moom itam doonoon jàmbaar lool. taxaw liggéey bi mhm. ba mu ëgsi tey ci si Ahmadou Maxtaar mhm. bi si si mënu saa jógee ci mhm. ba tey ci màggal gi taxawaayu Serigne Cheikh ci màggal gi ak ñi ñi topp ci ginnaawam foofu lañ mboon nga duggal ñu fa euh, leeralal ñu ko tënkal ñu ko ba suñ jon yàlla tey bañ ëgsi nag ci fi nga xam ne mooy téeméeri ati màggal gi euh, tàbbi insha allah ci kàttan yàlla waaw jërëjëf sëñ Tamsir màggal gi bi sëñ Modou Sa jógee dégg nga ñu koy tuddee màggalu Serigne Cheikh. Mhm. yaa nga dégg ñu ne màggalu Serigne Cheikh. dëgg la mhm. la ko waral nag mooy diirub li suñu Modou Moustapha di ne amuñu indépendance. Mhm. waaye nag Serigne Cheikh nag daa tombe ñu am indépendance. état ne fi. màggal gi dajeeg ay élection yu ñu tuddee référendum. ñu ne ginnaaw màggal gi élection yi danoo dajee. ca élection yi mënut a ñàkk dañuy fomm màggal gi. ba beneen yoon ñu màggal ko ca mhm. élection yi moom ñu def ko mhm. daati comme bu gi Serigne Cheikh biroom ndar Serigne Cheikh ba mu àggee fekk na booba am na ñun waxtaanal ci kilifa yi ban ne leen mënuñu cee jël benn dogal mhm. ca ki fi sëñ Moussa Baye ñëwut sëñ Bachiroo nga ca woon sëñ Fallu ñoom ñëpp dañ ne bala ñoo jël benn dogal ki fi sëñ Moussa Baye nga xam ne màggal gi ci loxoom la ne day ñëw ba pare bu ñëwee lu wax rek ànd nañ ceeg moom. Uh-huh. ndax ñun luñ fi dogal rek da ciy ànd ak ñu ndax ñooy ay kilifaam. Mm-hmm. sëñ Cheikh daal di ñëw bi ñëwee sëñ Fallou daal koy leeral li tubaab bi wax. Mm-hmm. mu ne ko lu ngeen ko tontu mu ne ko ñun koy yeew lañuy xaar. Mm-hmm. mu ne kon jëru muy àggale màggal gi du ma ko fomm duñ ko fomm tey duñ ko fomm ëllëg. door a laaj lu tax ñu bëgg koo foofu moom da dafa hmm. gàntal ba pare door laaj. <laughs> ñu ne ko dafa tombee ki élection. Hmm. ci réew mi toll na foo xam ne faw élection yi am. Hmm. Serigne Cheikh ne leen. bu bis baa ñay woote ji nan woote ji ñay màggali màggali. <laughs> ñu ne ko nag loolu ndax fa nga nekk dañ faa war a woote. mu ne ko kon ña fu bëgg a woote ji woote ji maag sama waa kër ñu màggal. <laughs> damay woote. Mhm. ca ku ñëw baax na ku ñëwut sama waa kër daan ñëw. Mhm. sëñ Fallu sëñ Bachir xamal ko ne lii Serigne Cheikh wax ci leen ànd. Mhm, te nag màggal googa Serigne Cheikh nee na booba. màggal googa bu nu fexe woon ba mu fomm. beneen bis dana ñëw tombeek màggalu 18 safar ñu jéem ko. dëgg la kon. même ci coronavirus bi rek. waaw ok danoo wax ne. ñëpp dañ ne màggalu di si safar ak amam ñu ngi koy. Mm. xame ci amul màggalu Daaru Xuddoos. dëgg la moo tax bi màggal Daaru Xuddoos bi amee kenn nattablu ne 18 safar dana am. loolee nag ca leen jóge ba ban jox cër cër dëkk bi. Mm-hmm. nga xam ne amut corona gis nga jàkk yëpp tëj ci coronavirus bi. mais mm-hmm. jumaay Tuubaa bokk ci. déedéet déedéet. Serigne Cheikh nag jël màggal gi nag. Mm-hmm. di ko woote ni ko sëñ Modou Sa doon wootee. njàngum alxuraan. Mhm. bala ko wooteen mu demal mu dem ci ki fi toogal sëñ Touba. Mhm. sëñ Fallu la jamonoon teel. dëgg la ginnaaw bi sëñ Blaat. sëñ Blaat mhm. doonte moom ak sëñ Blaat. waaye sëñ Blaat way juróom la. màggal bala ko def dana dem sëñ Blaat jox laaj ko ci ndigal. mu yor ko moom it 45 ba 78. mu jóge fi sëñ Mbàkki Madina. moo ci topp. sëñ Mbàkki Madina moom it jël ko. 78 euh, ba 85. ci la sëñ tan xariloo moom menn at la ko yor bi mu fi jógee sëñ Aliou mm. bi sëñ Aliou jógee sëñ xaadim sëñ xaadim mm-hmm. nag bi mu ko yoree mm-hmm. la màggal gi ñëw ci doon ci jëwriñu sëriñ Mbàkke Mohamed mm-hmm. sëñ xaadim Mbàkke bi mu ñëwee toog fekk Arabie Saoudite la ne woon doon bi mu ko jëlee mu ñëw dafa wax sëñ Mbàkke ne ko dama woo sañ Mbàkke ak sañ Cheikh Madina ne ko màggal gi dama bëgg ren ji li tàmbalee ci sama ay ji Daaru Xudoos di benn baat mhm. jenn jëwriñ muy mhm. sëriñ Mbàkke Mouhamed mii laa bëgg mu doon jëwriñu Daaru Xudoos mhm. Cheikh maddina toppal ci ginnaaw sëñ Mbàkke Soxna Lo sëñ Mbàkke Soxna Lo doon jëwriñu Daaru Xudoos ban ko waxee la sëñ Mbàkke daan ne ko màggal ga buñ ci ab màggal gi li fii maa ngi fi lu jëm ci wàllu lekk ah. ci kër gi ci sa kër gii ak li wër sa njaboot maa ko sasoo sëñ Cheikh Mbad na ko lu jëm ci wàllug naan mhm. maa ko sasoo loola nag mooy wéy ba nëg ni si loola nag ci la sëñ Mbàkke Mohamed jëloon léegi boobu jox na ko ñun dongi tër bi yi mhm. at mu jot ñu togg ci bu nee suba la mhm. ñu togg añ ca tokkoor ba indi ko sëñ Ahmadou Bokhtar togg reer indi ko bu bisu màggal gi ñu def ko bu màggalee bi ci suba si ñu toggaatub añ door a yeewee ko loola sëñ Mbàkke soxna loo moo ci joxe woon digal ginnaaw bi nag bi ko sëñ xaadim jëlee nag ba jóg fi nag mhm. sëñ ahmadou muxtaar bi moo ko jël gën koo yaatal nag mhm. kon sëñ ahmadou muxtaar yàlla dimbali na mhm. sëñ muntaxa ak sëñ ahmadou muxtaar ñoom la yàlla tombale ci téeméeri at yi nga xam ne ci la sëñ tubaa am tubaa kon daal ci gàttal ginnaaw sëñ modou sa moom nii la màggal gi déwee ba fii ñu toll nii màggal gi noonu lay doxee insha allah yàlla nañ fi gën a yàgg lool euh, sëñ mbàkke wax dëgg yàlla kàddu am naa ba ñu ngi fàttaliwaat a tàbbi ci émission bi rek 33 943 48 28 mu mel ni kon ren màggal gi dana am beneen dimension boo xam ne dana wuuteeg yi fi jaaroon mm-hmm. ndax dañu wax ne centenaire mm-hmm. ndax gis nañ lépp lu ñu defal centenaire rek mm-hmm. daañu ko daañu ko waajalaat ci geneen anam gu bokk te gën ko daan waajale kon ren màggal gi ren di tombeek bisub aljuma boole ci di bis bu màgg bis bu gën a màgg ci bisi kon loolu doonaat beneen liggéey bu yaatu yaatu kon gannaaw dañoo toll ci centenaire muy téeméeri ati sëñ Touba fii ci Touba. Mm-hmm. kon ren mel na ni. Mm-hmm. am na beneen wàccaay bu yees boo xam ne. Mm-hmm. Euh, li ngeen ko màggal gi. loolu bëggoon nañ cee. dugg. bu ko defee ñi ñiy déglu. te xamoon màggal Daaru Xudoos te xam nan ko daan màggale daañu xam ne màggal yu ren gii kat am na beneen particulier boo xam ne bokk teg màggal yi weesoon kon loolu looñ ci mën a baax ci wàccaay boobu waaw jërëjëf euh, waajtaay bi nga ca kori wa la mm-hmm. sëñ Ahmadou Muxtaar dajale woon taalibe yi mm-hmm. ndax booba nit ñaa ngi waxantu naan ren la téeméeri at yi mm-hmm. mu xamal leen ni xam naa ne ren la téeméeri at yi waaye bala ma cee dox benn jéego dama cee am ndigalul kilifa gi di Cheikh Mamadou Mountakha bala ma cee dox benn jéego donte ren la téeméeri at yi xam ngeen ko xam naa ko waaye nag bala ma cee dox benn jéego dama cee am ndigalul Cheikh Mamadou Mountakha loolu ndeysaan damay fàttali sëñ amoom sëñ Fallou bi mu ñëwee bàkkeel weeru rajab teru nga xam ne fa la ko teroo Bakel. ndeysaan benn fanub rajab uh-huh. mu ne xam naa ne tey la benn fanub rajab mm-hmm. xam naa bisu màggal ga waaye du ma fi tudd bisu màggal gi ci dimb ba ci sama Abdul <laughs> na ndax am kilifa rek am kilifa waaye si axul mutaar dane mm-hmm. xam naa ne te téeméeri ren la mm-hmm. xam ngeen ni ren la waaye nag bala ma cee dox benn jéegu di ca dox dama cee am digul Cheikh Mamadou Mountakha uh-huh. bi mu ne Cheikh Mamadou Mountakha nag la ko ne ko ginnaaw yaa fi nekkal sëñ Moustapha ci sëñ Moustapha ko doon woote jox nañ la ndigal nga woote ko ca na tasaaroo Mm-hmm. ca la sëñ Modou saa door a wut benn communité mm-hmm. boo xam ne organisateur lañ koy organisation mm-hmm. ñu jël juróomi bis benn bi bu nee bu màggale ba suba sa la mooy juróomi bis yi sëñ Modou Sa da ko sëñ Ahmadou Moukhtar da ko jagleel juróomi doomi sëñ Tuubaa yi ko wuutu benn bi jàll na démb mooy le treize waaw ci daaru marnaan kër sëñ Tuubaa gi ñu jagleel ko waxtaane fa sëñ Modou Sa waxtaanoo ñett tomb la woon Mhm. bu njëkk bi mooy sëñ Modou Moustapha ak ak xam-xam mhm. mhm. sëñ Modou Moustapha ak social sëñ Modou Moustapha ak yar macha allah loolu la wax waxtaanoo loolu woon démb la woon uh-huh. suba ci la 15 bi la ñuy dem Louga bés boobu lañ jagleel Cheikh Mahamadul Fadal macha allah bu demee ba la 19 ak la 20 le 19 lañ jagleel maam si Rampal la vin ñu daje jagleel seen blaat ci njaareem ñaar yëpp njaareem la la 21 nag la ñuy dem Masaalikul Jinaan dañuy dem masaalikul jinaan mhm. boobu lañuy jeg bu njaareem lay jegle si Abdou Lahat mhm. bu masaalikul jinaan mi euh, euh, Lapentin ah. boobu la ñuy jegle si Abdul Xaadir la ñuy def masaalikul jinaan waaye bu màggalee ba ci suba sa nag mhm. am benn dajee bu ñu def bu ñu tuddee cérémonie religieuse maanaam synthèse màggal gi bis boobu lañ jagleel Cheikh Saalihu Mbàkke ci mbaarum Daaru Xuddoos mooy bu ñu xëyee bu ñu yeewee rek nit ñi day daal di continuer ci mbaarum Daaru Xuddoos defaat bis booba bis boobu mooy bisu yeewee bi kon ubbite gi démb la suñ Mudu Sall ko jagleel yeewee bi euh, samedi la sëñ Modou sëñ Saliou lañ ko jagleel mm-hmm. waaye Louga sëñ Fallou la njaareem sëñ Abdou Lahad Ndakaaru sëñ sëñ Abdou Khader mm-hmm. loolu daal mooy waajtaay waajtaayu ren jii mm-hmm. dañoo wax ne nga xam ne dem nga ci dëkk yi jubluwaay waaw jubluwaay li jubluwaay mooy ngir dëkk bu ñu dem ñu xamal leen ndigal li yaatal gi ndax démb li ci gën rek sëñ Muntaxa yabal na taawam sëñ koso moo ñëw démb ci moo njëkk a jël kàddu xam ne ndigal la lu bàyyi ko ci Cheikh Mamadou Muntaxa uh-huh. sëñ Ahmadou Muxtaar ñëw ci jataay ba kon loolu mooy xamal ne mhm. ndigal la li tax ñu koy yaatal ci dëkk yi ndax loolu musta am ci màggal Daaru Xudoos moom dan daa def rek bu màggal jotee rek waa Daaru Xudoos màggal ko mm, waaye ren ji nii mu yaatoo nga xam ne sëñ Muntaxa ba ci ne mhm. ñi ne ci Saay uh-huh. ak daayira sëñ Baare ñu mhm. màggal ko ci kër sëñ Tuubaa dëgg xam ne kon màggal gi ren dañ koo yaatal yaatal boo xam ne li tax nag ñuy dem ci dëkk yooyu di ko jox mooy dëkk yi ma la day dëkk yi nga xam ne ñooy daanaka ñooy ñooy yoonu murit dëgg la mooy tey jii boo demee Louga. Louga <laughs> Njaareem. Mhm. Ndakaaru Masaalik. dëgg la foofu fu ci ne dafa am mbooloo mu fa dajee moo xam ne dafa jar ñu yaatal leen. Mhm. waaye tiiwul mbooleem média yëpp. Mhm. dan fay jëf jëm yaa xanaa démb gis naa leen fa. dëgg la sëñ Ousmane Sourang yi euh, dékk wax ak moom sax. Ah. waaye lépp daal li ñu ci yaatal bis bi. ba nga xam ne daan xam ne bis bii. ab xarnu la bu sëñ Touba am Touba. dëgg la. te nag nan wax nan wax li fi am mayug yàlla mayug yàlla baax na lool yàlla mën naa maye lool. waaye ñun ñii di ko waxtaane kenn mënu cee wànne bu bu xarnu bii diil si war naa la fekk <laughs> yombu moom donte nag yàlla mën naa maye lool waaye liñ ci ne kenn mm. koy na ci def lu mën ak lu mën xam ne ab xarnu buy diil si waat moom mm-hmm. ah mu fekk la dana xaw a doy jafe lool ndax dund googu yombul léegi ci jamono jooju kon daal mooy wàccaa gi ngir yaatal ko mm-hmm. ngir ñëpp bàyyi xel màggal gi daal lool lañ ci jublu sëñ macha allah sëñ Ousmane euh, sëñ Mbàkke am na solo lool maa ngi ziare bu baax seen naa Ousmane euh, di ko baax di ko borom yitte na ci bërëb bi Euh, moo ñu xamale ak sëñ Mbàkke mii ci jotaay bi ñu koy ziare bu baax euh, sëriñ Mbàkke wàccaay am na solo lool ci yaatal gi ndax sëriñ Tuubaa moom ci boppam dafa bëgg ku ko yaatalal mbiram rawatina bis bu tedd bii nga xam ne wax nga ko ci tàmbali wax gi yonent bi sallallahu alayhi wa moo ñaanal boroomam ngir mu ko bis bi gën ci ay bisam mooy bis bi mu ak moom mhm. bi itam léppam yonent bi mhm. mooy itam mu ñaanoon yàlla yal na ko yàlla defal bis bi gën ci ay bisam mu doon bis bi muy dajak moom te bis boobu mooy bis bi ko sëriñ Moussa jëlee fee ci njaareem indi ko fii ci tubaa ci bërëbam bu tedd bi ñu jébal ko borom kon wàccaay am na solo lool rawatina nag yaatal gi ci dëkk yi ndax day mel ni loolu mi ngi daan am ci ja ci màggalu màggalu Touba kon mel na ni bu ñu tollee ci centenaire mhm. euh, yoon la mhm. ñu gën a ñu gën a ñu gën a yeesal mhm. gën a gën a gën a gën a xamle mbir bu baax a baax mu mel ni Daaru Xudóos ku wax Daaru Xudóos tudd daayira ndax man leen sax sëñ Cheikh moo ko sos ci yoon wi kon daayira yooyu nga xam ne bañ ci gën a ràññeeku mooy wilaaya tey wilaaya tey seen taxawaay ci euh, ci centenaire bi ak daayira yi nekk ci seen suuf. Mhm. taxawaay boobu looñu ci mën a fàttali. waaw wilaya mhm. njaboot la goo xam ne sëñ Mbacke Mouhamed mhm. moo ko sosoon. ñu am taxawaay bu mag bu ñu taxaw ci daayira. lu jiitu loolu. am na daayira bu fi nekkoon bu Serigne Cheikh Mbacke ba mu sosee daayira daayira bu tuddoon at-taawunu wa taarufu wa tamasuk bi diinil xawim maanaam noonu la tuddewoon daayira bi <laughs> xamante ak dimbalante ak jàpp ci diini ju dëgër ji ginnaaw bi mu fi jógee nag. Mhm. la wilaay juddu. Mhm. mag ñooñu nekk ci. Mhm. jamono yi nga xam ne sunu la Cheikh Moustapha Mohamed. moom sañ Mbàkke Soxna bi mu ñëwee. la andi beneen kuréel bu ni tuddee ahibaa il xadiim li nusrati diinil xawim. maanaam ñi sopp sëñ Tubaa. dimbali ci ci diine ji. noonu la ko tuddee. mbooloo moomu nag. bokk nañ ci mbooloo mi gën a fës ci jamono jii ci mbooloom Daaru Xuddoos. donte. am na yeneen dayre yoo xam ne ndax daayira yooyu dañ leen a jàpp daayira boobu may wax dañ leen a jàpp ñuy dayre boo xam ne mhm. dañuy daayira sët mhm. nga xam ne ñoom waxtu wu ne mhm. ku ne da leen sañ a digal ndax sëñ Moustapha bi mu ñëwee dafa wax ne yàlla damaa nattu bi may toog samay kilifa dong laa fekk xane man man mun waa liggéeyloo kenn dañ maa war a liggéeyloo ginnaaw dañ maa war a liggéeyloo nag danaa nas sama mbooloo ci génn course mhm. mel ni course nga xam ne per boo yëkkati beneen topp la mhm. ngir ki sama kilifa yooyu saa bu ma liggéeyloo rek du ma bett mhm. loolu moo tax mu formé mbooloo mi ndax moom nee na yàlla da ko natt moom bi mu ñëwee toog dafay fekkut kenn ku mu war a yilif moom ñëpp ko yilif moom nee na ñëpp mu fi fekk ñëpp ay kilifaam la mm-hmm. nga xam ne moom dañ koy day toog rek ñu digal ko mu def mm-hmm. kon nag mbooloom ahibaa il xaddiim mm-hmm. mbooloo la moo xam ne mbooloo mbooloo la moo xam ne ñoom ndigal dong la ñuy déglu dëgg la ndeysaan ndigal day jóge ci sëñ Ahmadou Muxtaar ndigal day jóge ci sëñ Cheikh Madina ndigal day jóge ci sëñ sëñ Abdourahmane ndigal boo gisee mu digle rek yëfi ay mbooloom la digal waaye ñi ci des moom dañ koy sant mhm. ñaare boo gisee ñu dem ci ay tool wala fenn rek mhm. sëñ si dim sëñ blaad wala kenn ñoo ko woo mhm. ne ko liggéeyal ma nangam mu wax mbooloo ne sama kilifaa ma liggéeyal ma dem leen loolu nag moo tax mbool daayira boobu li tax mu fees mooy dañuy daayira boo xam ne daayira sët lan waxtu nañu leen di gis ci terrain bi ko waral mooy dañ leen di am na it daayira ba wilaaya ñoom it ñu ngi ci képp paaruk sëñ Abdourahmane maanaam mooy ñi nga xam ne sëñ Cheikh Mbacke leen jur Mm-hmm. seenu njaboot ñëpp ñoom ñoo ne ci wilaaya mm-hmm. ñi nga xam ne sëñ Cheikh Mbacke ñoo moo jur seen moo moo leen jur mm-hmm. seenu njaboot seen i taalibe seenu njaboot ñoom ñooy wilaaya waaye ah, ahibaa el xadim nag daayira bu bees la boo xam ne 2014 la formé la ko sëñ Moustapha moom sëñ Mbacke soxna loo formé bi mu ko formé danee mbooloo mii laa bëgg a ànd liggéeyal sëñ Tuubaa Mm-hmm. waaw dane mbooloo mi li tax ma sos damaa bëgg a ànd ak ñoom mm-hmm. liggéey sëñ Tuubaa loolee nag la tax ñu man caa joxe firnde mooy uh-huh. fépp foo xamee ma dem nañ fa mm-hmm. sëñ Moustapha ànd na fa ak ñun ba mu jeex waaw fu fu bu nu fu ñoo jeexal moo nu yeewi loolu moo lay xamal ne mbooloo la am na yeneen daayira daayira sëñ Ahmadou Muxtaar am na daayira sëñ Cheikh Madina muy fédération sëñ Cheikh Madina bi yooyu yëpp di waa Daaru Xuddoos saa bu nu dajee nag démb fee boo fa ñëwee da ngay wax ne daayira Daaru Xuddoos yëpp fa daje waaye nag ñu xam ne programme la boo xam ne daal. Mhm. jël nañ ci matuwaay boo xam ne nii. Mhm. njabootu sëñ Modou sa gépp ñoo koy waajal waajtaay wu méttee méttee métti. waajtaay woo ndax damay wax ne màggal gii. Mhm. ci ñun. dafa metti waaye neexut. dëgg <laughs> màggal gee nag. neex na ci ñun. ndax da am ay gan toog di leen berndeel mm-hmm. ànd ak ñoom di xéwlu ah. mais fii nag moom <laughs> da ngay boole tëj sa kër nekk ci liggéey ba ba ngoon moom ba ñaari fan yëpp maam fi ne boo xëyee sa kër alxamis mm-hmm. fi man bu ma xëyee sama kër alxamis ah. boo fa delluwaatee samedi ca ngoon la bu ma yeewee loolu kon loolu kon daanaka <laughs> màggal gi day metti yow ab liggéey la ci yow waaye du màggal gooy noose daal waaw loolu xidma la boo xam ne mm-hmm. loolu mooy mooy kii bi daayira yëpp nag la ñuy nuyu tàmbalee ko ci daayira sëñ Modou Soye yi mooy turandooy sëñ Modou Soye yi mooy ahibaay ahibaay Cheikh Moustapha mhm. mooy soppee Cheikh Moustapha yi ñoom it nga xam ne am turandoo yi xam ne sëñ Moustapha Saliou moo leen jiite mhm. ñoom it am nañ benn ndaje bu ñu war a dajee mhm. waaye ñoom ñëpp ñoo ngi leen nuyu di nuyu nag waa wilaaya ndax waa wilaaya ak waa ahibaayil xaddim dañuy benn bopp boo xam ne waa ahibaayil xaddim ci wilaaya leen juddoo wilaaya leen yoroon moom ci lan bootu woon mm-hmm. Cheikh Moustapha ñee la formé daayira boppam mm-hmm. waaye ñu ci ñi ëpp ci Ahibahil Khadim kenn mm-hmm. ku ci ne daayira Ahibahil Khadim koo ci gis am na carte wilaya waaw wilaya ko jur rek waaw wilaya lañ jur daal wilaya daal mooy ndey ji dëgg la <laughs> ñoom ñun ñuy ab sët ñoom sax sët lan ndax wilaya sëñ Cheikh la woon sëñ Mbàkke la woon kon wilaya ñoom doom lan ci wilaya Ahibahil Khadim doom la ci wilaya ndax bàyyi Cheikh Moustapha Mohamed moo taxawaloon wilaya Cheikh Moustapha Mohamed taxawal Ahibahil kon ñun ab ay doom lan ñun wilaya mooy dëgg la dëgg la loolu nag loolu daal ñu xam ne ñoom ñëpp nag. àndandoo nañ ci bis bi. Mm-hmm. doon benn na sëñ Cheikh sosi woon daayira mm-hmm. aayab alxuraan bi mu andi woon mm-hmm. wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ak taawunu alal birri wa taqwa wala uh-huh. taawunu alal ismi wal udwan uh-huh. joo jii la daayira di doxe ba nëg ni si ca daa waxoon ne nag la tax ma sos ko mooy damaa xool yoon yi jëm ca yàlla ma xool ne daayira ci a ci gën a gàtt ma jox leen ko bu ma gisoon weneen yoon wu gën a gaaw daayira wala weneen a gàtt weneen yoon wu uh-huh. a sedd daayira naa leen lool Serigne Mbacke xam naa li tee ñu yëkkati jotaay bi sax bëriwut waaye euh, liggéey si moom Moustapha faaw rek moom nga barkeelu ci coono bi. ndax moom li mu reen si daa yombut. te lépp doo ko teg ci ci ci ci ci coono. mel na ni sax euh, ñu ba dañuy wax naan boo xoolee jëmmam ak fotoom. dafa lay nuru ko làq juróom-ñaar fukki at ba lu ko ëpp. ay yées na lool lool. waaye nag dafa liggéeyal sëñ Tuubaa liggéey bu metti boo xam ne mhm. yaakaar naa képp ku koy liggéeyal rek mhm. faaw nga barkeelu ci coono boobu maa foofu mhm. suñ Modou Sa fi ne boo dee xool aw photom wii da naan juróom-ñeent fukki at na ko dëgg la te benn fukki juróom benn fukki atam na benn at am ñu ne manqué na ñaari at cinquante huit ans cinquante neuf ans photo yi boo koy xool danga naan kii waaye dara wëralu ko lu dul coono dëgg la dafa am bi mu feebaree feebar bi ko fi jëlee dëgg la sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fan dafa andi docteur da ko daa bëgg mu seetal ko ko mhm. bi mu ko seetee docteur bi daa génne ko sawi jur dara jotu ko ñàkki nelaw doo nga ko jàpp <laughs> sëñ Cheikh sëñ Modou Sarr ko nee na loolu docteur mu ne ko docteur bi nee na daal Mbàkke dara jotu la xool na xool gisut ci na ne daal ñàkki nelaw daal gis na ko ci mhm. mu ne wax docteur bi de bu waxul dëgg di yàlla jay na ko <laughs> ndax diir ba fi sëñ Tuubaa jógeeg léegi fàttaliwu fu ma fi gëmee bët xanaa fu ma ay nelaw dabe waaye li ma sëñ Tuubaa bataleel mhm. ak ñi ma sëñ Tuubaa bataleel tëdd di nelaw xaju fi ci fukki at ak juróom-ñett toog na xalifa dëgg la nee na xanaa fu ma ay nelaw dabe mhm. waaye li ma sëñ tubaa bataleel mhm. ak ñi ma sëñ tubaa bataleel tëdd di nelaw xaju fi mhm. moo tax daanaka mën naa ne bi mu fiy jógee so coono bu mat ndax koo xam ne dundoo lu ma juróom-benn fukki at ba pare mel ne ku màggat booba yan bee diis dëgg la dëgg la xam nga lu toll ni sëñ tubaa ca nag li ma ci tamsir li ci gën a yéem mooy sëñ Mourou saa doo wax ne fenn la jàngee seere ak xilaafa déedéet ndax moo njëkk a wutu sëñ tubaa waaw dëgg la xilaafa xewutoon <laughs> kon moom fan la jànge seere mbooloo waajal waajal sëñ Tuubaa rek waaw waajal nga xam ne maanaam yow da lay xam ne kii sëñ Tuubaa da koo waajal dëgg la da koo waajal waaj waajtaay goo xam ni waaj bu yéeme na xam na ne moo koy wut ci booba sëñ Moodu dama ne te boobu nag doogu ma waaye boobu wut sëñ na jafe na lool sëñ Moodu daa wax ne mhm. sëñ Moodu sëñ Moodu sa rek a wut sëñ Tuubaa mhm. ñun ñi ci dis ñëpp sañ Moodu sa lañu wut sëñ Fallu mhm. nee na sëñ Moodu sa rek a wut sëñ Tuubaa ñun ñi ci dis ñëpp sëñ Moodu sa lañu wut dëgg la ndax bi mu wuut sëñ Mourou Sa hmm. boobu xilaafaam yépp ci tubaab yi la hmm. amuñu indépendance sëñ Mourou Sa dund na ba jóge fi amuñu indépendance soixante lan am indépendance vingt-sept quarante-cinq vingt-sept quarante-cinq lépp tubaab yi yaa ngi bëgg pexe yi ñu doon pexeel sëñ Tuubaa hmm. ñu ngi koy pexe ba mu yàgg sëñ Mourou Sa ne bay moo ngeen noppalu de daal leen garabu kër jëmmi garab ga ak doom yi lu gën a wex ne ko doom yi kay gën a wex mun noonu laa mel ak sëñ Tuubaa da leen a misaal ci garabu kër yi da leen jëmmi garab ga ak doom yi lu gën a wex Mhm. ñu ne ko doom yaa gën a wex garab ga mu ne noonu laa mel ak sëñ Tuubaa bay boo ngeen noppalu mhm. moo tax bi ñu ko bëggee booleeg maam Thierno maam Thierno moo maam Thierno moo nite lool mhm. tubaab bi bi ñu demee ci maam Thierno ne ko uh-huh. ñun dañoo gis ne bi fi sëñ Tuubaa nekkee sëñ Tuubaa bu nu masaa bu bu bu amee soxla ci ñun yow la yebal ci ñun bu nu amee soxla ci moom yow la ñun la yebal ci ci yow la ñu yebal léegi dañoo gis nag ñu jóge fi keneen di dogal ku dul yow lu waral lii bëgg a jaxase daal dëgg la sëñ maam Thierno leen sëñ Tuubaa bi muy dund Mhm. maa ko doy ci njabootam waaye bi mu fi jógee ab taawa ma ko doy bi mu dund maa ko doy ci njabootam waaye bi mu fi jógee ab taawa ma ko doy mhm. daan ne suñ mudu saamee day mhm. bu ma woowoon tey du ma fanaan daaru borom daaru loolu la wax keroog ndax suñ tubaa rek ngir ngir xool xool jëmmi suñ tubaa ndax li suñ tubaa ne moom laa fi teg waaye moom it bam bam bam bam ban ban dencee suñ tubaa pare ah, moom fayum nuyoo laa man waaye nuyoo ma mënatuma ko maanaam fayum nuyoo daal nga nuy si ma maanaam fekk si moo tax suñ mudu sa daane ko lu mu daa soxla day fekk borom daaru maanaam borom daru daw ko fekk si diirub li mu fi ne ndax xam na moo fi jóge moo fi njëkk a jóge sëñ Modou Sa ñaari at ndax moom 43 la fi jóge waaye daal ñu xam ne mhm. sëñ Modou Sa waaye lépp nag sëñ Tamsir dañ koy delloo ci sëñ dañ dellu ci sëñ tubaa lépp moom la lépp sëñ tubaa la maanaam coow li li ñu fi wax lépp lépp lépp lépp moom la fi ne kiim taanu sëñ Moussa Gueye wax lépp lépp mu yéem la lépp sëñ tubaa la ana sëñ tubaa mi ko jur mu ne la ngay fa ngay jeexal mooy doomi sëñ tubaa la mag ñi ànd ak sëñ tubaa mag moo ci waxtaan da ngay jàpp ne mën naa yor yoonu murit waaw waaye da ngay fa ngay jeexal mooy bis sàngam la jébbalu sëñ tubaa rek mm-hmm. ca sëñ tubaa nee na yoon yi gaa yi doon aw mm-hmm. dama koo talañ mm-hmm. ci bu gàtt tawaytu tariixal xaw mi waxtamti daahi wali xat xadal xaajaate bi raw di wala nee na diggante bi nga xam ne ci la yónent bi mhm. ci la gaa yi doon dox dox dox bu gaa dox bu gudd mhm. man ci laa ko talañ ca ca kat li tax ma tay mooy tagg gi ma doon tagg yónent bi la moo tax moom lim lim jàppee woon yónent bi moom nee na mhm. li ma rawee ñëpp mooy kenn ku ci ne bi ngay liggéey rasulullahi da ngaa dem ba xam ne liggéeyal ko baax na nga di ko liggéeyal sëñ Tuubaa nee loolu baax na waaye nee na man rasulullahi dox ak Mm-hmm. ba ci yàlla mu ne ko damaa bëgg ah. ahmadu liggéeyal ma mm-hmm. raama mm-hmm. rasulullahi min ilahi kaw nii xadimuhu wa abdullah raama sàkku na ñu laaj ko ku sàkku mu ne ki yàlla yónni min ilahi suñ borom kaw nii sama nekk man sëñ tubaa xadimuhu di ko liggéeyal wa abdullahi ma doon ab jaamam uh-huh. moo tax am na feneen fu wax naan sama bëgg-bëgg man sëñ tubaa mooy di jaamu yàlla ba yàlla nangu ne ab jaamam la uh-huh. may lëggee rasulullahi ba rasulullahi nangu ne ku koy liggéeyal uh-huh. muraadiya kaw nii abda rabbi xadima man uqaatibuhu bi sukri wal hubi saas mi nee na sama bëgg-bëgg la mooy damay jaamu yàlla ba yàlla nangu ne ab jaamam la mhm. waaye damay lëggi rasulullahi ba rasulullahi nangu ne ko koy liggéey moo tax daa dem ba mu yàgg yàlla muri kiiraayam diggam ak rasulullahi mhm. mu toog ba mu yàgg mu ne man dong maa xam kañ la yàlla yónni sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam gaa yi jaaxle lool mhm. kañ la mu ne gaa yi tàmbalee 570 bi yonent bi gënee jamono ba 632 bi yonent bi wàccab liggéey sëñ Tuubaa nee na loolu de mooy dund yónni bi waaye yónni bi yàlla yónni wu ko foofu mhm. ñu ne fu ko yàlla yónni mu ne Seydina Muhammad bi ko yàlla di yónni mhm. sunu maam aadam min jàpp moo fi mag mhm. ñu ngi ko tëral ci <laughs> na <laughs> la anta lësi oh mm. tiita mm. xidman mm-hmm. na ko la anta yow rasulullahi mm-hmm. alësi yaay diggante ndox watiini ak ban yan jëli di leen xeb am na feneen fu wax naan nubuwatuhu xablal baraya xaddin jallat mm. laxoo sabxiinal jadd fitiin yux si la ba mu yàgg mu ne ko lakkal fadlu yaa muxtaaru yaa sayidal wara alayka salaamullahi yaa man maa sula ba mu mu ne ko la anta mm. imaamu rusli mm-hmm. xad jaa mm-hmm. annahum mm-hmm. talaa xawka fil israai wal kullu qad sala labista siyaabal majdi wal fadli wa ola wa fiika min al axlaaqi maa ajisal kula sëñ Tuubaa lii ko may li <laughs> lool eh, fi nga daaneele dafa dafa dafa neex lool macha allah ndax damay faral di wax ay mbokkitaab bi naan leen Serigne Touba ñi doon tagg yonent bi ñëpp ñëpp bàyyiwuma kenn mboolem lu ñu tagg yonent bi rek ak nu mu mën a toll benn bayit képp <laughs> benn bayit bi nga daaneele moo wat seen tagge labistu siyaabal majdi wal fadli wal ula min axlaaxi ma ajal kula ma ne benn béy bii képp képp hmm. lu lu kaab ansaan ak hmm. buusayru ak ñeneen ñi ñu xaw ñu xamul hmm. seen taggee yëpp bayit bi moo ko te loolu te loolu ñeme naa ci wallaahi waaw ñeme nañ ci naa ci ndax kenn mun tax yonte bi lu weesu lu weesu lii déedéet kenn mënu ko kenn toox lu ko toll sax waaw kon fi nga fi nga ki am na solo lool mm. ndax euh, lépp sëñ Tuubaa la lépp sëñ la tey bu ñu jëloon suñu Masamba jot Samb di ko waxtaane mm-hmm. day mel ni moom dong wallaahi suñu Daaru Asan Njaay suñu gaawaan maam Cerno maam Serafal wallaahi waaye sëñ Tuubaa mooy moo moo daj képp mm-hmm. àddina mm-hmm. naka li li nga si kii wax si euh, euh, Ibrahima ji dafa am bayit wu xam bu ko sëñ Tuubaa bindul ngir nga wax ko murit mu gëm ko sax dana jafe bi yàlla ne malaaka yëpp nañ su jootal aadama mhm. ba ñëpp su joot iblis bañ mhm. ñëpp dañ ne iblis daa torox mhm. suñ tubaa ne iblis daa torox waaye ndax xam ngeen lu ko tax a torox ñu ne ko ñàkk su jootal aadama mu ne dëgg la ñàkk su jootal aadama moo ko tax a torox waaye baa xam ngeen ne jëmmi aadama taxul yàlla di su jootlu gaa yëpp ne alxuraan aadama la tudd te yéen ñi jàng alxuraan xam ngeen ne alxuraan aadama la tudd dëgg la sëñ tubaa ne leen alxuraan aadama la tudd waaye jëmmi aadama taxul ñu ne ko tax mu ne leeruk Seydina Muhammad gi laxasaayu ci ndiggul aadama yi la bëggoon ñu sujjootal ko ci boobu Seydina Muhammad gën a gu jamee <laughs> boo demee ci xasiidaam gëm tudde miim ya mhm. da ngay dégg mu naan li nuurihi sajadat mhm. am laa ko mursilihi ci rasulullahi ci aadama leeruk Seydina Muhammad gi nëbb ci mhm. la bëgg ñu sujjootal ko ci a kon sëñ Tubaa li nga wax ne moom lu wax kampul waa ansaan wala ba sori xat baraxu waaw nee na ñooñu ñëpp waaye tuuti la dox rek ne jaawastu hmm, kamban waasaan jeex na maanaam tuuti la ne jéegi naa leen waaw maanaam jaawastu kamban waasaan te sëñ ba ay waxam moom gëm rek waaw <laughs> wa <laughs> fii mat yi jaawastu kamban waasaan wa fii mat yi jaawastu kamban waasaan ci tagg gi ma doon tagg yontu ci laa jéggee kamp ak asaan hmm, kenn kenn kenn dootul am ku mel ne moom déedéet déedéet te ñooñu ñooñu ñi dàqoon a tagg bi ci kaw suuf hmm, rumtul ma ala fa shalli nu cheikh ahmad bam <laughs> maa waral xatlu xatu unsa lanaa ka ahmad bam loolu la woykat bu wax kon suñ tubaab moom kenn kenn du moom yal nañ ko yàlla fayal mm. suñ màkkee suñ xol sedd na lool mm. waxtaan am na solo mm. uh, liñ ci doon séntu lépp am nañ ci lu kawe suñ njort di ñaan sëriñ bi nangul ñu ko amiin amiin te bis bii ñu dëgmal di asrona muharram ñu àgg ci ak jàmm te li ci mënu soi digee ci ku ko màggal yàlla defal ñu ko ci ñi am yéene ak bëgg fa yéene cee teew ñoom ñëpp yàlla may leen kàttan bañ man cee teew ci barke Sewul Xadim xam naa dañuy daane suñu kàddu rek euh, santaat yàlla bu baax ci émission bii di maktabatu Sewul Xadim fii ci Assalaamy FM 99 point 0 euh, di ziara suñu Fallou Gala Sylla yori ni bërëb bi ak itam Serigne Moon Abib Thiam mi nga xam ne moo nekk ci xarala gi ak mbokkitaal bi yëpp yi nga xam ne ñu ngi ci bërëb bi ñaan yàlla nangul ñu te làqal ñu ko fu yàqu yëgut eh, ci barke Cheikhul Khadim ba bis bi ñu dëgmal yàlla def ñu ñu tewe ko te lépp lu ñu def rek sëriñ bi nangul ñu ko ñaan yàlla ñu teewaat ci beneen dimanche génnewaat ci maktab bi lu am solo lool ba mel ni lii ñu doon waxtaanee wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. sëñ Mbacke